asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu man la Youssouf Diallo euh, nekk doom ci kër gi waaye nekk taalibe ci kër gi fas yéene waxtaan ak yéen ci solos béréb bi béréb bi ki fi tëdd moom la ñuy wax Maulana Cheikh Alpha Samba al Muhajir moom Maulana Cheikh Alpha Samba du sénégalais waaye calale gi mi ngi bàyyeekoo ci Palestine euh, askan bi mu ngi bàyyeekoo ci askan yonent Yàlla moom salaa sallam ci Jaafar At-Tayyar moom Mawlana Alpha Samba maamam bi ñuy tuddee Mouhamadul Amin Al Ansari moom moo demoon aji Makka te seef góor yàlla bi ñuy tuddee Mawlana Cheikh Abdou Khadir Jilani xadasallaa sirrahu bu mu fa tasee ak Mawlana Cheikh Abdou Khadir mu waxtaan moom wax ko fi mu toll ci xam-xam ak li ko desee mu ànd ak kilifa boobu di Abdou Khadir Jilani mu koy jàngal di ko tarbiya di ko tasfiya ba mu doon góor yàlla mu yëkkati doomam bu jigéen bu ñuy tuddee Shamsul Huda may ko ko li moo indi tey kër gi buñ ne xaadir cosaan gi fa la bàyyee ko ñuy jurante góor ak góor góor ak góor di gàddaay ki nga xamante ne moom moo tëdd fii tey di Maolana sa alfa Samba moom mu ngi bàyyeekoo ci Mali dëkk bu ñëwee Masséna ñëw fii ci senegal bi ñëwee ñëw fii ci Sénégal nag muy tolloo ci 1895 la ñëw Sénégal borom bërëb bi bi mu ñëwee nag jaar na ci bërëb yu bari jaar na ci dëkk yi bari bokk na ci Kaolack dëkk bu ñuy wax Sing booy dem Kaolack boo rombee Kabatuki rek Sing Sing nga ci teg mooy fi EFI bi nekk tey bi mu fa jaaree mu fekk fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk saañ tey boobu dëkk guñ saañ Sing Sing lañ dëkkoon bi mu la fa ñoom ñëpp ay pël lañu ay pëli ne nañ ñuy waxtaan bi ñu waxtaanee ñu fasante couleur ñu ne ko comme yow yàlla def na borom xam-xam nga te ñun dañoo soxla borom xam-xam dañoo bëgg nga dëkk ak ñun di ñu gind ci yàlla mu ne yàlla woon na ma njëkk kiraama ne dëkk goo leen mais saa yi ngeen dëkkee rek danaa dëkk ak yéen mu jóge fa continuer li nga xamante ne mooy rexlam nee na jaar na Touba. waaye jaar ne jolof bu muy ko jolof di ñëw nag boobu soxna jum fi bàyyoon Zeynab Taal fas bi mu ko ceenee woon fas bi rëcc nag bi fas bi rëccee ñuy topp fas bi te topp bi ba ñu kii jàpp fas bi saañ la dëkk ñu koy tuddee Kele Kajara njaboonam tey ba tey ñu ngi bi mu jàppee fas bi mu dem déclaré ko ganjaay bi sëñ bi ñuy laajte soxnam ñu ne ko ah sa soxna si bi nga ko canee woon fas ba moo rëcc moom la topp sëñ bi moom it ne amul toogaay moom mu jóg topp ko bu muy dox di dox ba yegg si fii tey saañ booba saañ waa saañ dëkk guñ fii saañ sing-sing lañ dëkkoon li tax ñi dëkk si fii mooy parce que biñ nekkee sing-sing dañoo jaxasoo woon bambara yi ak pël te pël ku nekk xam na ci wàll jur lay yëngut bambara yi dañ doon béy léegi ñuy yàqalante nag mu bëgg dem ba bëgg jur coow ci lañ waxtaan seen biir ba indi fii waa Saañ may fi waa Saañ waaye fii suuf si am na dëkk bu nekk fii ci gannaaw ñu koy tuddee Siixaan ñoom ñoo moomoon suuf si ay saañoo lañ fa doon béy nag saañoo xeet la ci xeetu dugub saañoo lañ fa doon béy léegi bi ñu indee ñooñu pour ñu dëkk si fii nag bi ñu ñëwee saañoo boobu di di di law di law di law bañ ne saañ bambara moo indi turu saañ bambara bi mais cosaan gi mooy saañoo saañoo xeet la ci xeetu dugub yi bi ko defee sëñ bi di wër di wër fas bi ba ñëw yegg si fii saañ ñu ne ko ah suñu sëriñ baa ngi nii kii moo ñu fekkoon sing-sing ñu bëgg mu dëkk ak ñun mu ne ñu dëkk goo leen mais saa yi ngeen dëkkee rek dinaa dëkk ak yéen ñu ne kon tey dëkk nañ mu ne ah kon comme dëkk ngeen dinaa dëkk yéen lii moo indi ñëwam fii ci saañ mais sañcul saañ de dafa fekk ñu sañc saañ ba pare moom Mawlana Cheikh Alpha Samba moo tëdd fii ci bërëb bi bi loolu amee mu ñëw ubbi ay daara gox bi yëpp mu def fa daara ba kër ma ndaw lépp di ak yëpp taalibe yu jóge bërëb bu nekk Burkina Guinée fu nekk façon nationalité bu nekk rek boo xalaat rek daan nga ko fekk boo ñëwoon ci dëkk bi fekk ko fi muy jàngale di woote ci yàlla di yar di liggéey di jaamu yàlla moom Mawlana sa Alfa Samba bi mu demee ba 1930 ci la yàlla war wërsëgal benn doom bu góor bu ñuy wax Maulana Cheikh Alpha Hamma Maulana Cheikh Alpha Hamma moomu moom mooy wayjur Cheikh Mouhidine Samba Diallo Cheikh Mouhidine Samba jàll xam naa foo ko wax ci àdduna gi waxuma Sénégal mais foo ko wax tudd ci àdduna xam nañ ko ñu tuddee ko maamam bu góor moo tëdd fii mooy Samba Diallo bi mi amee bi loolu amee mu continué di jàngale di jaamu yàlla bi ba 1939 ci la ooye ay taalibeem ñu ñëw mu ne tey la alxamis alxamis alxamis bii di ñëw dinaa génn àdduna loolu wiraasatul muhammadiya la yonent yi yonent bi salaa salaam borom xam-xam yonent yi borom xam-xam ñoo leen fi dollu al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñoo fi donnu ñi nga xam ne ñooy yonent kon loolu ndono la boo xam dañ ko jëlee ci yonent yi bi mu ooyee taalibe yi xamal leen loolu ne alxames bii di ñëw dinaa génn àdduna waaye bëgg naa su ma génnee àdduna béréb ba ma doon jaamoo yàlla ngeen denc ma fa parce que amaan na boo leen ma dencee ci jumaa ji bés di ngeen bëgg koo yaatal mu indi mu indi jafe-jafe ngeen ma denc fi ma doon jaamoo yàlla mooy fii neewoon na ni béréb bii nag boo fi ñëwoon bu tawoon boo soxlaa suuf su suuf su wow ak nu mu munta taw taw boo ñëwee boobu di nga fi fekk suuf su wow ak lu tax dafa bari woon garab garab dañuy demoon ba jàppante lëndëm kurus fi la doon jaamoo yàlla mbindeef façon mbindeef boo xalaat rek moo woon ci béréb bi parce que nee na benn bés euh, waajur Cheikh Mouhidine di Mawlana Cheikh Hamma boo muy kër ga nekk ci jamonoy ndaw mu rëcc waa kër ga daw ñëw ne day ñëw ci waajuram waaye keroog bi mu fi ñëwee yeneen mbindeef fekk nga neen am na ñoo xamante ne ñu ngi dañoo dañoo lem seen karaw toog ci bi mu ko gisee mu daw gàttanu ko delloo ko bi jotaay gi jeexee mu dem kër ga mu nekk ndax ñi nga gis foofu tiitoo mu nekk tiituma mu nekk alhamdulilah am naa ko moo doon ëllëg kon bërëb bi bërëb bi yéema la bi mu gaañoo 1930 30 30 30 30 39 ci lañ ko rob fii ci bërëb bi mooy fii melutoon nii nag benn cercle la woon rek dañ ko couvrir benn cercle la woon bu ndaw noonu la meloon mais Mouhidine moo ko yaatal nii ba mu mel nii tey ci noonu mu bàyyi fi doom joo xamante ne mi ngi toll ci 9 ans di wayjuru Cheikh Mouhidine de Alpha Hamma ku ne xam na ne nag ku am 9 ans mënul toog xilaafa waaye saañ tey histoire bi ñuy wax nii ci saañ siw bi ñuy wax ci saañ kiraama yi ñuy wax ci saañ yàgg na du tey me tey lañ koy doo xam mais kéemtaan yi fi nekk kéemtaan yi yàgg la woon xar baax yi fi nekk xar baax yi yàgg la mag yi defoon ko waaye wayjur bi dafa ne woon su ma génnee àdduna ngeen zikkar ñeent fukki fan bu ñeen fukki fan yi motee yeewi naa leen yéen ñëpp kenn ku nekk dëkk bi nga ko woon nga dellu fa parce lu tax mu wax loolu nee na gannaaw ñeen fukki fan yooyu dina am lëndëm bu metti bu dugg ci dëkk bi fu mu fekk boo moytul rekk nga texe di moo tax mu yeewi ñëpp ñëpp dem parce que ko war a wuutu xale la ci zahir mu ne ko nag na nga laxasaayu dem jàngi boo góor góorgóorloo niñ ma wooyee alpha samba dinañ la ooyee noonu alpha xamma nee nañ alpha boo ko wàccee alif bi benn la laam bi fanweer la faa bi juróom-ñett fukk la boo ko boolee muy cent onze mooy bu kon mën nañoo jàpp ne ay bu zamaan ñu fi tëdd ak loolu waxoon doom bi ne boo góorgóor niñ ma woowe alpha samba dinañ la oowe noonu alpha xamma dinañ alpha boo ko waccee rek cent onze la jox tax cent onze mooy bu zamaan noonu la mbir mi demee bii loolu motee balaa taalibe di tasaaru ñu laaj ko na ndax ñu tabaxal la wala ñu defar la mbaar mu ne déedéet jaru ko ñaan naa sama borom sama borom nee na du ma bàyyi ci naaj dina ma keral bi loolu amee ñuy zikar guddeeg bëccëg suba ngoon ñuy zikar di zikar bi ñeent fukki fan yi motee taalibe di ñëw di taggoo si bi ñëwee ci lañ fekk garab bi ñuy tuddee ngi gis mu sax ci seen ronu bopp sëriñ mu toll ci 1 mètre ñu ne ah suñu sëriñ li mu waxoon de dëgg la ne woon ne yàlla du ko bàyyi ci naaj yàlla keral nañ ko mooy garab bii ñuy gis ni mu ngi gis muy garab bu yéeme nag garab bu doy waar garab bu bari kéemtaan teg ci ok olof moo changé tur bi nag nga gis mais tudd toon nga gis parce que nee neen lim doon faj jàngoro jum doon faj bu la dalee rek boo ko dindee jëfandikoo ko rek mu mu mu mu mu mu faju olof na ko nga gis def léegi gis ko léegi mooy garab bi muy garab bu yéeme nag. bi loolu amee nag ci la ci la Mawlana sa Alpha Hamma dem jàngi waaye juróom ne ko newoon ko nag boo jàngee ba pare na dem uti uti ji métier parce que nit ñi ku leen bëgg a moom dolool moom ci caaxaan de foo nga am métier mënal sa bopp lu ko may ñu fooye la te tey réew mi moo fi nekk ku abal bëtëm fu la neex nga fu neex ngay fu ko neex ngay xool ni ko olof di waxee bi loolu amee bi mu jàngee métier bi mu jàngee ba pare dem jàng métier ba mën métier yàlla war ségal ko alal ju bari sax boobu mu ngi Dakar xilaafa papa mu ngi fii waaye woon nañ at bu nekk tabaski ak korité dina ñëw jiite si boo jàllee mu delluwaat Dakar parce que dëkk bambara woon façon façon foo boo xalaat wala façon mbir yoo xalaat rek mu woon fii dëkk bu yéeme la woon parce que li waajur bu waxoon la nee na ge sama gannaaw lëndëm dana ñëw lëndëm jooju moo fi nekkoon nag bi loolu amee Maolana Cheikh Alpha Xamaa nekk noonu nekk noonu Dakar ba min 1963 Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul feeñu ko ci Kiraama mu jox ko yat mu ne ko yéegal ci kaw minbar nga xutba nee bi mu yéegee tàmbali xutba rek ci la gént bi dagg mu xam ne ne kon dem toog ci xilaafa baayam jot na dafa xëy rek na soxna yi dafa leen seen bagaas ñu dem boobu amu fi dara nag amu fii dara dara amu fi amul néeg ju baax amul kër ju baax mi ngi nekk ci mi mi li mu yoon ci alal ci Dakar kenn xamul mu toll mu xëy rek na sama sama sama sama waajur oote na ne xilaafam jot na kon dafa leen seen bagage ñu dem noonu lañ gàtt noonu lañ ji buubee seen bagage nee nañ li mu yoroon ci alal ci oto kenn xamul mu toll lépp fa la ko bàyyi Dakar ñoo toog ci àll gi. bi mu ñëwee commencé defar kër gi boobu amul amul néeg amul dara ñi ñuy tuddee waa Seexaan ñenn ci mag dëkk boobu génn ne suñu doomu sëriñ ñëw na kon nañ doon dimbale ko mu taxawal këram ci la nga ñoo dimbale ñu tabax kër géeg defar fa ay néeg sàkket ko nii la dëkkee yi nga xam ne mooy saañ moom mu nekk fii parce que baayam ne woon na ko lëndëm dañu fi ñëw lu bëree ngoon fii saañ mais bi mu ñëwee ñëwul ak fit ñëwul ak doole waa dafa ñëwee ak xel loolu la yàlla jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alxuraan alxuraan dafa ne fa bi ma rahmati min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida al qalbi lam faddu min hawlik yonent bi boo dëgëroon xool rek lii mu am du ko am waa dafa nooyoon dafa wàcce woon boppam dafa suufe woon boppam nangoo ànd ak baadoolo yi nangoo toog ak ñoom nangoo di diis ñoom bañ a demee xalaati boppam li munte xew rek day laajte ba pare doo ko dem moom bi mu ñëwee loolu la def di naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom ba jëlee fi lu bëree bëri ba dëkk bi yëpp naat ba dëkk bi yëpp leer gox yëpp moo doon tudd ku dee mooy sangu mooy jullee jumaa ja amoon na jamono joo xamante ne mooy mooy noddu mooy liqaam moom mooy jiiti mooy xutba lii yëpp def na ko fii ci dëkk bi bi mu demee nag moom it euh, ba 1999 ci la liggéeyam jeex waaye juróom alxamis bi mu wàccoon liggéey moom it même alxamis ci la wàcc liggéey ñu denc ko ci gannaaw waaye juróom ñoom ñaar ñoo nekk ñoo tëdd fii wala Mawlana Samba ak Mawlana Alpha Hamma baay ak doom ñoo tëdd fii ci la Cheikh Mouhidine wuutu baay moom it muy koo xamante ne ko jàmbaara la muy koo xamante ne xam foofu foo foo ko natt rek weesu na fa parce que ñaar ñi ñaar yi ci la ñuy nawee doomi aadama ci la ñuy fonk doomi aadama ci la ñuy yëkkati doomi aadama ci la ñuy respecté doomi aadama mooy jikko ak xam-xam xam-xam kese te sa jikko rafetul xam-xam amul njëriñ kon foog jikko ji rafet xam-xam si doog ñëw Cheikh Mouhidine yàlla may na ko loolu fu mu wax rek ñëpp nangul ko moo ñëw yaatal bërëb bi nii bërëb bi melutoon nii moo ko tabax def ko nii tabax hôpital ci gannaaw tabax centre social fee ci gannaaw mu tabax école gi am na béréb bu nekk fi ñuy tuddee bu saan ahli badrin moo ko tabax lépp looy gis ci réalisation ci dëkk bi rek moo Cheikh Mouhidine moo ko def école baa ngi ne ci gannaaw waaye garab bi garab bu yéeme la daan na wax ne buñ ko wuti boo ko wutee rek yàlla wuti la ci suuf nga jëm fekk lu tax nee na bi muy bi yàgg naa ñaani yàlla pour yàlla may ko bërëb joo xamante ne fa jaamu yàlla di fajoo yàgg na koo ñaan yàlla yàlla na mu ngi ko nangoo ci barkey garab bi daa am jigéen bu jógee ci réewum tubaab yi ñëw tubaab la feebaru cancer la amoon te kenn ku xam na jamono jooju cancer ku mu dal da ngay dee nee na hôpital yëpp dem na fa hôpital bu mu xalaat rek dem na fa docteur wala médecin bu mu xalaat rek dem na fa dañu naa mënuñ ci dara ñu tegtal ko fii nee na sama xaalis yëpp jeex na desetu ma dara ñëw naa fii nag ngir yaakaar la sëñ bi ne ko man de taalibe kese la xam nga jàngoro jooju ngay wax xaw ma ko xaw ma nu mel xaw ma nan la xaw ma lu koy faj ndaw si ko loo ma jox rek mu doylook ko sëñ bi mu jóg ñëw ci bërëb bi jël ci xob bi yóbba kër ga bind ci lim ciy bind jox ko ndaw si mu jëfandikoo ko li ñuy tuddee cancer boobu keroog keroog keroog la keroog réer ci yaramu ndaw si ndaw si delluwaat ci réew ma demaat ci hôpital yi ñu xool ko ñu ne ko yow de jàngoro bi ñu gisoon ci yow dëñ na kan moo la faj parce que docteur bi ko doon suivre bi ko doon suivre moom dafa canceroon mu ne ki faj di nga ma boole moom mu faj sama doom mu ne ki ki ma faj de ab taalibe la mi ngi ci àll ga mu tegtal ko mu ñëw fii sëñ bi jaaraat ak moom fi mu jaaroon ndaw si sëñ bi ne keroog bi bi bi ko waaji di envoyé enveloppe bi mënul wax li ci li ci nekk ci biir ci ay millions ci la tàmbalee hôpital bi parce neen comme ci faj la jóge ci faj lay delluwaat xaalis boobu ci la jóge ci faj lay delluwaat mu oo taawam di Cheikh Ibrahim mi ngi mel ci Jéelaani tey fa lay gàmmoo mu ne alal bi suma ma deewoon tey sax aram nañ ci yéen ngeen donn ko parce que ci faj la jóge kon ci faj laa koy delloo kon mooy cosaanu hôpital bi ñuy gis nii ci gannaaw enveloppe boobu nag jeex na beneen enveloppe yeneen enveloppe dugg ci kon bërëb baa ngi nii moo tax nee nañ bu kenn witti boo ñëwee ci biir loo fekk mu daanu jëlal nga yóbbu dañ ne woon na zam-zam lima shuriba zam-zam yéene boo ci am rek bañ naan ko rek loolu lay faj bu dee alal nga bëgg nga jëfandikoo ngir alal di nga am alal bu dee jàngoro la nga jëfandikoo ngir jàngoro di nga am jàngoro bu dee leneen ak leneen leneen yéene bi rek la la ndox moomu di faj mooy ndox moomu nekk fee ci makkatul mukarrama te ujaay bi ñu ñëw indaale ci zam-zam li maa shurba garab bi noonu la waxuñ nag moo gën a foor zam-zam déedéet waaye am nañ yaakaar ne moom it yéene boo ci yéene rek yàlla naka ko nangu parce que loolu moo wax rek misaal la ci loolu moo wax rek misaal la ci lu faj ab cancer moom mun war naa mun a faj bépp jàngoro boo tudd war na ko mun a faj kon loolu lii mooy li nga xam ne mooy histoire dëkk bi kon saaña ngi nii dëkk baa ngi nii sëriñ bi nag dafay fekk waa saañ waa sëriñ bi sancul saañ dafay fekk waa saañ parce dafa dajeno waa saañ fee waa saañ ne ko nga dëkk ak ñun mu ne dëkk gooleen boobu yàlla war na ko ci kiraama ne ñii dinañ jóge fee ñëw fii kon kooku du nit kese bi ñëwee nag mu fekkaat leen fii ñu ne yaa ne woon dëkk guñu bu ñu dëkkee nga dëkk ak ñun kon dëkk nañ mu ne kon dëkk na yéen lii moo indi dëkkam ci dëkk bi fii tund gi yëpp nag moom rek moo fi nekkoon waaw saañ nag daanaka tey moom siiw na mais saañ dafa yàgg siiw waaw du tey saañ dafa yàgg siiw waaw ci maam yi la woon ak baay ba doom yu ñëw sët sët sëtaan yi ñëw tey kon liggéey la liggéey joo xamante ne lu ñu liggéey bu yàgg la résultat mooy dogg feeñ waaye kilifa yi amul lu ñu fi liggéeyul amul coono bu ñu fi dajut amul it ñaan bu ñu fi ñaanul sëñ bi nee na sax mooy weejuru Cheikh Mouhideen nee na tukki ma doon tukki di dem France di dem ay Côte d'Ivoire ak di dem Burkina ne woon ne nee demoon pour pour pour ut alal mais dama demoon pour sampal sama njabootu réseau ku fa wàcc rek loo ñaan yàlla la yàlla nangu ko dama demoon ngir sampal sama sama njaboot réseau benn dëkk bu ñu dem ci dëkk boobu rek bu ñu talalee seen loxo yàlla yàlla ñaan ko mu ne lii moo taxoon may tukki waaye du woon alal du woon daraja du woon tur waaye lii moo taxoon may dëkk may tukki moo tax tey muy din li mu def gis nañ ko at mu nekk daana dem dakaar ci université sa Anta Diop ay kàngam ñoo ko doon ñoo ko doon wër waaye du tee li muy wax dina ko wax te kenn du ci teggi benn baat loolu yàlla defoon na ko kon waajur moo ko liggéeyoon joxoon nañu misaal nag moom Cheikh Mouhidine nee na benn bés waajur bi da ko oo tegal ko bool wala plate jël acier teg ci teg ci biir jël pièce teg ci ginnaaw bu xëccee acier bi pièce bi topp ci mu laaj sëñ bi Cheikh Mouhidine mu ne ko lan moo yóbbu lii mu ne ko acier moo ko yóbbu mu ne kon mbir mi di yéen mbir mi ñun la boo leen yëngatoo rek lépp li ngeen bëgg rek dina sotti moo tax sëñ bi daan na wax ne lii du ñun de lii yëngu ñu ngi tëdd ci ron garab bi sëñ loolu daan na ko wax daan dégg ci wax waxam yëpp mu koy mu koy wax kon ñii mbir mi ñii la alpha mu waxoon nag xëy na tey Sénégal moom ñëpp ay bu zamaan lañ daan naa ko wax du du du ay sànni xeer parce que booy xool jamonoy sëñ Fàllu mook sëñ Babacar si radiallahu anhu ak Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ak mam xalifa su ma juumul ñoo bokk jamono mais tey ñoom ñëpp dañu ne ay xutbu zamaan lañ te adduna gi benn xutbu zaman moo ci am dégg nañ fi benn waxtaan Cheikh Mouhidine nee na am na tur yàlla mu doon mu doon rëkk mu doon dóor di ko xëcc mais saa yu saa yu xëccee rek ayatulaay xu may ni day dóor loxom ne ko tegal lii may borom fekk maa ngi dund doo ci mën a jot waaye Sénégal ñu kay tey dañuy yaakaar ne moom xutbu zaman Sénégal rek rek la rek la am moo tax ñëpp seen ñëpp def nañ ay xutbu zaman waaye ñoom it yàlla may na leen xel parce que firaaw ne keroog mu ngi dóor dëndam na man ana rabbukumul aala man may seen borom bu kaw bi boobu yàggu fa moo tax yàlla alak ko ci géej bi la lab yàlla na ci géej bi la lab ñi mu la doon yëpp jën ñii jën ñi lekk nañ lekk nañ leen ñii nëpp génn ci biti na moom du mu ko def dara al yawma nunajjika bi nika ne tey damay damay sàmm sa yaram bi ngir nga doon ab waar ngir nga doon ab fàttaliku ñuy ñëw ci gannaaw boo demee tey Égypte boo fayee ñu war la Firawna mi ngi ci weer ñu denc parce que maqaam bi mu doon oote dafa yeggul moo tax yàlla ala ko mais ñooñu nga xamante ne ñoom lañ yéegoon ci maqaama yooyu néew ma yegguñ ci maqaama yooyu mais ñeenti xutbu zaman mun a am ci benn jamono mënut a nekk ñu bëri tey ñu ngi sànku ñu leen war ñu leen di sànku ñu bëri tey ñu ngi yàq ñu leen war ñu leen di yàq parce que dañ leen di yeggee foo xam ne yegguñu fa ñoom ñu ànd ci ñoom mais ay góor yàlla lañ ay champion lañ ñi ñu tuddee ay champion ñooñu ay champion ay Balla ay ay Modou Lo ñi yàlla neen du ñooñu ay champion yàlla wax na ci alxuraan rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bay'un an dikrillah wa iqaami salaat champion yi ñooy ñi nga xamante ne njaay ak jënd du leen yàqal jaamu yàlla te ñi góor gi tëdd fii lu ne adduna mu na ko téye ci loxom waxuma maam ji de baay ji laa wax adduna mënoon na ko téye ci loxom te terewul neewoon nañ borom sare yi jóge ci gannaaw bu ñëwee te xamuñ yoon si bosor mooy gën woon lañ ñoon si bosor xamuñu sëriñ si ak taalibe bi xamewuñu ko sax ku am jafe-jafe moom rek moo fi amoon oto ci dëkk bi jigéen bu am problème guddi nekk ci diggante moom lañu ñëw fëgg mooy yóbbu ci hôpital sëriñ ba toll noonu koo xamante ne ki ñuy wax jina may mu ne wàcc ne fii moo ko xëcc ba mu wàcc fii ci dëkk bi kooku boo dajee ak moom li ma sol moo gën a riche mu sol new nañ bu doon taw téere mi da kay dajale ci benn place pour ndox bañ koo laal néeg bi yëpp doonoon seen moo génne ay millions tabax juma moom ki nga xam ni ay néegam dañoo seen ba buy taw muy dajale ay téeram benn côté di ci lal perméable pour mu bañ a tooy juma ay millions moom sëñ bi kon kii àdduna ñoru koon woon du koom-koomu àdduna du taar àdduna du du bëgg daraja parce que Cheikh Mouhidine daan na wax ne na taalibe kenn du ko gësam du garab du garab buñ du garab bu ñu meññ ba ñu koy gisam déedéet taalibe day ñëwal boppam nit ki mooy tànnal sa bopp sëriñ waaye taalibe kenn du ko campagne moo taxoon bokkoon na ci ndénkaan bi nga xam waajuram joxoon na ko nee na bul ut taalibe de bul nangoo doon sëriñ moo taxoon